yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi ahlan wa sahlan wa wax dëgg yàlla seer na nag seer na moom kàddu jaaykatu ndawal yi ak ginaar yi ci marché Ocass bu Touba ñoo ko yëkkati koor di weer woo xam ne askan wi te cee baaxoo di soppi cin mu mel ne ne ren jii doonu lu yomb ci borom kër ndax ni marché bi bindoo ñoom jaaykat yi dellu si ci seeraayu ndawal mi ngi jar trois mille cinq cent laay jaay xaw ma ñeneen waaye man trois mille cinq cent laay jaayee ndawal ndax foofu la toll. ay su suba trois mille amoon na fi moom trois mille. amoon na fi waaye ginaar yi ko nag ndax yaay naa réel baax na moom jar na ko ndax liñ koy jëndee liñ ci teg bëriwul parce que ay 200 francs lañ ci teg rek instant yi i waaw. donc fépp la seer nag instant bi parce que da ngay dem dara yor sa xaaj di jënd sax mais boo jëndee nag boo defaree pour jaay da ngay perte mais loolu lépp rek dañ koy sant yàlla baax baax ginnaaw ñu ngi koy fekkee rek waaw yàlla na ko gën a fekkee rek waaw yàlla baax na. du ci ñun ndax fan koy jënde fa la seere waaw ndax tey bu lu daan jëndee 2000 ñoo ñu ko fa jaayee parce que ay 2500 wala 2750. waaw waaw du suñ coobare ci fi ñu koy jënd la waaw waaye liñ ci man pour mu gën a wàññeeku rek daanu ko def ndax lépp ñun ñunu neen la daal yëf yi benn la daal mu gëj a def def na ko ren mooy seer seer gi nag du si ñun kon koy jënd la sa ni jamono ñu demee moo tax mu seer sant tool nii na mais alhamdulilah nit ñi moom sëñ Fallou moo ngi def xéewal yaa ngi ñëw kii yaa ngi ñëw nice di jënd njaayam ginaar yi moom comme ça niñ ko amee rek lañ koy xéewalee taalibe yi waaw xaw naa manqué xaw naa zéro waaye nag dinañ ci def xéewal waaw ndax ñun ñëpp kenn ku ne da nga koy xool ni sa bopp rek soo xoolee sa bopp rek dina mën a war a oyof daal luñ ci man pour mu oyof daal bu soobee yàlla ñoo ngi koy ñoo ngi ko ciy sàkku waaw pour taalibe yi yëpp mën cee jariñu ci weeru koor waaw ñu ngi ñaan daal yal ko yàlla yombal ci kàttanu yàlla ak baaxu sëriñ bi ni ndawal séerée noonu itam la ndugg sëriñ baare bay di jaaykat ci marché Ocass duñu xamle ne ren jii ndugg moom wàññeekuwul xanaa dafa gën a seer. bagage wax dëgg yàlla moom wàññeeku moom mën na defu ko moom xanaa gën a seer kii la wax wàññeeku amu ci moom xanaa suukar sax tane na wàññeeku na def euh, na 1500 mais bi la dafa yokk ko ay yëpp dafa yokk suukar rek moo wàññeeku diwlin dafa yokk. ay yeneen bagage yi dafa yokk boisson yeeg jus yeeg yëpp dafa yokk soble pomme de terre yooyu sax na tuuti moom. wax dëgg yàlla dafa seer na trop si client ñu jënd jaay dafa métti si ñun trop. suukar bi fi mu toll nii saako bi yéen a ngi koy jëndee ñaata la. si ko seer moom trop. koor di weeru xewal wante njëg yi ñuy gis ci marché bi wute na ak loolu bu baax ba tax commerçant yi ak client yi. ñëpp maase di sàkku ci kilifa yi ñu gën a bàyyi xel askan wi. day mel ni xéewalu Serigne Touba da ci wàcc prix chair na gépp cher waaye teewut dinañ am xéewal gu ñu defee ci gën a nu yut njaboot gi ndax njaboot gi rek moo tax ñor ah moom daal ñuy wax nañ xool commerçant yi nañ wàññi prix yi ndax xam nga ne borom kër bu dugg ci marché di dugg loolu laal ñu yokk loolu metti na. te lépp lan yokk diw gi yokku na lépp yow dama dégg man te état yi ginnaaw ñu ne état yi wàññi na te dégguma man moo ma jaaxal ndax bu nee wàññi na ko ba ñëpp dégg ni prix état na ci njaboot metti na na ci borom nga xam ne soxna yi xam ñoo ne ci waañ yi donc ndax ñun sama gi lu ñu joxe yaakaar na lu rëy fekk bu demee ci marché affaire yëpp day cher kon daal ñoo ngi ñaan ñi xam ñoo ngi dégg suñu kàddu di xam ne ñooñu tane ñu mel ni ñoom nañu dimbali autorité yi gouvernement bi def effort bu baax affaire bi wàññeeku bu ko defee askan yi mën a gis seen bopp waaw si ndugg mi quoi mais wax dëgg yàlla métti na moom. waaye client yi baax ñu ngi ñëw. waaw ñu ngi ñëw moom mais ñu ngi ñëw mais day métti moom dañuy jàmbar rek war na yàlla ku waroon jënd ñett benn nga jënd wala ñaar waaw daal li xalis nga jëm koo négocier rek waaw. bil